yee yee yee yee neen dafa coono ax lu tiktokeur daanooti nan ax lu tiktokeur daanooti nan <laughs> metti ci sénégalais mooy man samay vidéo gars yi dañ ko dul bàyyi xel mais man wax naa leen ko. fan yi ci ginnaaw nee naa leen entreprise de formation yi ne ci dëkk bi nu ngeen ma dégg xanaa nooy bañ a toj yax bi entreprise de formation yi nekk ci dëkk bi dina former juróomi fan ba pare dina laaji carte d'identité ñoo ñaaj parrainage dañuy wut parrainage ne lañ koy wute rek <laughs> déggoo li ma la maanaam monde bi moo am fu mu toll ci technologie dama ni xanaa xamoo leen seen compte yu bari yi ngeen ubbi dama ci bañ a yegg daal bëgguma yegg ci mbiri daal man wax bëgguma man dama bëgg gars yi wax ba pare ma jaaraat ci bëggum bëgguma di <laughs> bëgguma di soog ay wax sama kudd jàmm la ràcc man man kenn du ma yóbbu ya ci kasa bañ a ŋàppati kenn du ma jëli wax <laughs> lu tiktoker daanooti nan entreprise bi man xamoon naa ne Baye Tunkara xamoon naa ne Baye Tunkara na ci eh, wax rek moom it kenn demul mu des information la am <laughs> Tounkara Tounkara nga am information lu mu leen ci wax rek am na lum leen ci wax noonu la de côté yooyu la de côté yooyu la de <laughs> yéen fan yii ci ginnaaw def naa vidéo ni leen entreprise de formation yi nga xamante ni dañuy jël nit ñi di leen former ay juróomi fan ay defari nan ak defari gatoog defari lëf de poule <laughs> ci juróomi fan ñu laaj la sa carte nag di la defaree diplôme fekk pare na bu yàgg tey ko pare na nga ah nak new niveau technologie dafa yaatu adduna bi dafa toll foo xamante ne est ce xam nga ne ci kanam di nga toog sa ndik sa sa kër sa kër vote jot nga vote sa kër di nga toog sa kër àdduna mën naa dox ba ëllëg ngay sa biir vote sa téléphone bi c'est possible parce que lépp ay serveur la rek léegi monde bi moo toll foo xamante ne gars yaa man damay ragal gars yi de man dem ci banque mbaadu dem ci banque yi ndax weer bu dee liy dugg ci banque yi bari na de weer bu dee liy dugg ci banque yi bari na de ba gaay duñ dem ci banque yi waxtaan ak waa banque yi ñu fa photo ko beesul carte d'identité leen ko yónnee <laughs> pare naa ne nag jiwute rek foo waaye dem di jëlëf xaalis daal bu jaree joxe carte d'identité na nga taxaw vigilant boo xefee xefe boo xefee dinañ la yóbbu kasa fa ca ngàpp te ngeen di la jëli gars yi xaaj barke alxuraan da ngeen di xëy rek gis bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi xawmul amadou ba mi pale muy layam layam yi yàlla xam na ko gars yi bari ñu ngi pare ne te xamuñu ne ñu ngi pare de signature bi signature la rek signature boobu pas forcément man mii mën naa koo signé keneen ak keneen mën na koo numéro carte d'identité bi moo am importance numéro carte d'identité bi gaa yi wër du ngeen bàyyi site bu ngeen tijji mu laaj la numéro carte d'identité ngeen di ko fa dagaj fekk pare na nga daaw di di di nelaw. <laughs> site yi ngeen di ubbi ci enregistré seen numéro carte d'identité yi yéen a ngi parrainé te yëgoo leen ko na ngeen def ak coono fan yi yeenaar man damaa yeete ba sonn ni may mujj nag wuti yat dugg ci biir YouTube bi di layam layam di fëgg yéen kañ ngeen di yeewu am na ci loo xamante ne man duma ci bëgg a yegg duma ci bëgg a jaar man damay bàyyi bëgg a wax ba pare ma toppaat ci man ndongam daara laa daal may topp rek di raay na ngeen def ak coono am ngeen jàmm bàyyi leen sit bu ngeen dugg rek soit ñi déposer demande en ligne etc etc ak site bi site bi site bi sacrifié ak lu tiktoker, <laughs> site bi site bi vrai vrai bago bago moko mom site bi sacrifié na ak lu tiktoker ha ah? ngeen ubib site rek mu laaj le numéro carte ngeen niko fa dagaj fekk paré na nga daaw te yego ko bayyi yoyu ku ci dem bank sax taxawal joie vigilant ndax na ñu leen koy wuté rek ñu leen koy wuté ah du ngeen yeewu nag muus waaye di layam-layam yor sa carte d'identité bi site boo ubbi ñun la waa vous allez enregistrer votre numéro de carte d'identité nationale nga ne ko ca dagaj fekk pare na nga daaw <laughs> noonu lañ koy wutee réew mi jaxasoo fi mu ne Sénégal loterie Congo la waxaale bi mën naa metti waaye yàgg-yàgg dañ lay jaay réew mi tas tey leen seen carte d'identité te ngeen xam fi ngeen koy dugal lan la dañoo wax ba sonn maanaam sénégalais moo naqadee yee nag dañoo waxa waxa waxa waxa waxa waxa wax ba son hein il faut être un peu intelligent ngeen xaw mous touti tuuti xaw touti yeewu tuuti xam ne liñ leen wax du ay waxi dof xam ni man sama ree bari na sama kiccic bari na mais man nii laay tourné samay vidéo man façon fii laa fëll man sama kudd jàmm la ràcc man ken do layam layami man dima takkal lu ma deful man <laughs> day day day leer comprendre nga mais danoo yeete ba sonn bàyyi leen site d'internet bu ngeen cliqué tijji ko mu laaj la numéro carte d'identité nga ni ko fa dagaj loolu même bu dul affaire de parrainage sax wóorul dinañ la jiñ loo deful taqalal lu nu weng dóor la ci kaso ba ngay layam layam mi naan xaw ma ko woon bàyyi leen yooyu nit da ngay muus du site boo tijji rek mu laaj la euh, numéro carte d'identité nga ni ko ca dagaj surtout yéen ñi def demande en ligne fi mu ne nii instant bi ay faux compte la gars yi xam nga ay demande emploi bërëb nangam Canada nangam nangam ubbi ko nag ah loolu yomb na loolu ñun sax man nañ ko ah ubbi benn serveur defar ko ba mu normal xam nga ah da ngay xool boo duggee ci biir site bi da yaakaar ne ay canadiens sax ñoo ko moom fekk alors que maa ngi fii ci réew mi. di demander nit ay numéro carte d'identité ku dugg nga ne ko waaye vous allez enregistrer votre numéro carte ci biir site bi programme bi noonu lay demee ngay ajouté di dugali numéro téléphone di bind demande fekk yow yaa ngi ki ngay jox demande bi mi ngi faas mbaaw gi tëdd <laughs> ngay yóbbante demande demande bu jëm Canada kii encaissé demande bi mi ngi ci joor gi fii di nelaw di dem ci mbaaw mi di dem ak a ñëw ah nga enregistré say numéro carte d'identité ci site ah mu layam layame pare na ci gratuite du ngeen bàyyi yooyu te yeewu xam ngeen ne ah, site bii bi ah. bii tëddee waa TikTok ak lu tiktokeur daanu ngeen képp ku ko mas a taf daanu nga amul lenn lu fi nit di laayam laayame di ko wax man de heureusement ba bàyyi Ousmane képp laay publicité man heureusement man man yi naaj ci moom naa ci yeex a yeex a yeex a a dal parce que man man publicité wu ma wutumay sponsor man daal soo koy sama sponsor numéro un moy sama sponsor numéro 2 mom lay publicité mom mom mom lay lay man dal sonko man dal sonko bu dee reyal naa faatu man sonko dal bu dee reyal naa dee publicité yi ci baye xel hein ah? publicité bu gon na djé wax <laughs> parfois nga gis ku té garab di publicité garab bo xamanté ne leen ngi publicité do ko jëfandikoo <laughs> dama nga a neex da ngay gis ko laayam laay mitee ak garab ben garab bëgg fajj ñent ñeent junni jàngoro ak juróom te yow mi publicité garab gi lu ne nga laayam laayami wax ko ci garab gi garab gi mën mën ta fajj bopp buy metti te yow sa bop do ko jëfandikoo mais wax ju neex di tromper aussi sénégalais yi pour lan sa business dox say publicité dox ngay fayeeku ci tiktok bi wala ci youtube bi yooyu doxul soyons sérieux soyons sérieux bari nañ maire yu dox màggat yu dox ni di neewee ka res garab yi ñi plus ci tiktok bi yenn ci garab yi waxuma garab yëpp yenn ci garab yi baaxut bëggub dërëm nak mo leen duggal ci lu ngeen dugg yéen a ni kenn xamul li pare na digënté demb ak bëgg demb wër wi li ci pare ne <laughs> tiktok yi ñoy duggal nit ñi ci lu ne <laughs> man dama wax ba sonu c'est que man sama problème moy c'est que ni may waxé bo dul déglu da nga yaakaar ne kii day fo wala day ruube man ruube ma de lu leer naññ laa leen wax bàyyi leen site bu ngeen ubbi ñun leen enregistré numéro temps temps temps temps wala yenn compte yi professionnels yi day laaj ay numéro carte d'identité ngeen dugal seen numéro carte d'identité pare na ngeen daaw na ngeen def ak coono yooyu bàyyi leen ko hmm? formation yi bari yi ay yi formation togg togg ceeb juróomi fan formation cuisinier cinq jours fan la am ci monde xanaa formation jaay soble sax xanaa dañ ci def fukki fan ak juróom mais formation cuisinier ñun la nan la formé ci juróomi fan laaj la sa daan d'identité defar la diplôme xel est-ce que nangu na pare na nga daaw te yëgoo jigéen ñi moom la ci pare ne weer wii kenn xamul nu mu toll da ngeen xëy rek naan waa sa waaye fu ñu jëlee parrainage fekk yéen ko fan neen ci baye xel dama wax ba son nak man mo wax ci sofé nak sama compte YouTube bi dama koy muju tek ta noppalu nak wax deug yalla mo wax ji ma sofé dama koy muju tek ta dalu nak li da miti liggey wacc heure bi 20h ñepp ngi tok di dalu may ngi nit doog a wàcc ñëpp di dalu may layam lay bi def video te mënoon a nelaw de len deggi wax nak man Sénégalais yi nag fa may mujj ak ñax du fa sax de yat lay muju faq dugg ci bir YouTube bi raga ak yéen lan la ah